Euh, wax kontante dafay mel ni ñun dañ doon xeex pour am victoire en réalité ñun li ñu doon demandé mooy ñu respecter la dignité humaine li ñu doon demandé mooy àq ak yelleef waa Toobé ñu delloo leen ko li ñu doon demandé mooy tey justice bi wane boppam ne jot na pour sénégalais yi dellu di ko wóolu loolu rek lañ demandé te justice bi dégg nañu si liñ leen laaj ànd nañ seeg ñun euh, li ma lay ñaawlu rek ci mbir mi mooy tey jii waruñ ci foon ex jamono ji si troisième millénaire bi nga xam ni wax waxatuñ sax ay état de droit mais au moins la la consolidation des droits par l'État, si la ñu waroon toll tey ji bu ba di cautionner ay violations des droits de l'homme les droits les plus fondamentaux di cautionner ay détention arbitraire di cautionner ay personnes du troisième âge tey jii nga xam ne julli sax dañuy dañuy dañuy de nombreuses difficultés pour nous mën a julli jaamu yàlla ñu taxaw ci ay manifestations ak dañoo xeex ay gendarmes. la nga xam nga yooyu ay mais liñ ci jublu rek moo nekkoon di jéem intimider manam di jéem ay mais yaakaar naa ñii ma gis tey ñu taxaw ñi wa Toobé nak wa yenen village yi ma gis ils sont debout et déterminés té dinañ xex ba xexé fi fu mu yem wa tribunal bi tribunal bi joxégul àtteem limu joxégum rek moy liberté provisoire la joxé gannaaw bañ dégloo ñëpp déglu avocat yi déglu procureur bi ba ku nekk joxé sa xalaat tribunal bi nee le 26 août bi di ñëw dina wax àtteem mais en attendant gis na ni ñu téye leen téye si nëkkandiku euh, ce n'est plus nécessaire loolu motax mu jox liberté provisoire à charge pour les prévenus de répondre à la convocation du tribunal le jour du délibéré té inshallah allah ñooñu ñoo njëkk a am intérêt parce que ñoom ñoo njëkk a porté plainte waa ICS kon am nañ intérêt à ce que ñëw fii pour ñu lëttale mais du ñu bett bu ñu fii na bàyyi nañ leen du ñu bett parce que dossier bi dara nekku ci te lañ ñuy wax rek lu dara nekkul kenn du ko plaidé dañuy demander le renvoi des faits de la poursuite comme le renvoi des faits de la poursuite

tey dafa war nag justice taxawaay bi mu war taxaw certes mooy appliquer la loi mais nak di défendre ñi nga xam ne amuñu doole li ñuy wax rek entre ki am doole ki amul doole liberté moom mooy néewal doole justice mooy libérer mooy protéger te nak nañu fexe ba li nga xam ne mooy dëgg na am doole li am doole doon dëgg ñu doon lo xam ne amul doole ñu koy dëggal tey message bobu jallna nam naam àtte guñ mënuñu euh, préjugé ci tribunal di àtte le 26 mais yaakar nañ né message bi mu def tay bàyyi. ñii nekko dem nañ ñibbi bu bu su àtte ba defe naa joxe na. waaw xanaa am euh, mbégte euh, ci euh, ni ñu bàyyee ñu feex. Euh, ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy euh, waa Tobène makka Dieng ak Kër Maguey ñi nga xam ne kenn waru leen woon jàpp ndaxte ñi ñu waroon jàpp wala ñi ñu waroon àtte tey mooy waa ICS ñi ñu waroon jàpp ñi ñu waroon àtte tey mooy état du Sénégal mi nga xam ne complice u ICS la di foqati suufu béykat yi waaye ba léegi am nañ mbégte ñu bàyyi leen ñu feex dellu seen kër xeex bi nag day continuer day continuer ngir ñu fay béykatu Maka Dieng Kër Maguey ak Tobène li ko jar ñaareel bi xeex bi day daal di continuer ngir itam euh, ñu bañati am beneen Tobène beneen Ndingler ndaxte kat dafa dox. am mbégte rek am kontaante rek parce que koo xam ne defoo dara dañ laa fekk ba sa dëkk jàpp la yóbbu la tamit nii rek la mën a demee parce que defuñu dara te ñun ñoom dañ leen a tooñ dañ leen a tooñ yóbbu leen kon suñ dañ leen di bàyyi rek parce que waaw dañuy gën a continuer ci waxtaan ba juboo rek waaw ret moom dañuy waxtaan ba juboo waaw parce que liñ doon bañ ak démb bërki démb moom la ñuy bañ ba tey waaw ñun ba ñu ñu joxe affaire bi mais nag buñ koy joxe nañ ko joxe ci ñu waxtaan ba juboo ci kàddu yu leer nañ ñu joxe ko kontaan nañ trop di gërëm tamit waa FPD yi ak waa aar li ñu bokk yi ñoom jàpp nañ ci affaire yi trop ak mbooloo mi nga gis fii yëpp tamit euh, ñëpp dëkkuñu toobeen mais xeex bi ñun ñëpp ñoo ci àndandoo vraiment ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ay waa Màkka Kër ma yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñëpp rek bu ñu lemee dañuy juum mais nag kontaan nañ trop ci lii. lii moom ku mu doyul dara dootoo doy adduna bi nag dafa toll foo xamante ne si dafa laaj taxawaay ndax kat dafa mel ni dañoo bàyyee suñu bopp te su ko defee nag lii nga xamante ne si waa Tobène def nañ ko muy waa ICS muy benn entreprise boo xamante ne si dañoo ñëw diwut koom fii suñu gox. wax deug yalla wa Tobène woo ñu si ñun wa aar la ñu ci njiital suñu coordinateur Ali Badara Mbuub depuis janvier ba légui ñu and ak ñom ba tay ji yalla def ñu déféré won leen ñu def fi une semaine ci mag bu Thiès tay nak ñu leen doon atte yàlla def nak vraiment ñu am ci ndam kon ndam ndam loolu nak ñu ngi koy delluwaat askan bi yépp nak ñu koy delluwaat askan bi yépp di féliciter ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm surtout nak les forces de l'ordre ñi nga xamanteni indo ménager aucun effort tay ji vraiment comprendre nañu bayyi ñu ñu taxaw taxaway bu mat seuk ba suñu frère ñu bayi leen mais nag di ñaxtu tamit li nga xamanteni ni nañ ko muy doori ñu dooron suñu frère yi suñu frère adon ñu ngi ba tey mi ngi ci biir gennagul mais am nañ dañ ko bayi ndax tamit lool moy li nga xamanteni mo jaadu parce que deful waxul lu tax vraiment ñukoy koy kon donc ñu ngi demander le procureur vraiment ak mën naa wax ni de passa magnité vraiment ñu dawal yermandé génne ko mu ci njabotam ndax té ay wajurum soxla nañ ko xale la boo xamante ne bu am bu ñu am yaakaar ci moom la ci njabootam njumte du njumte ne du wees bu fekkee dafa juum nañ ko jéggal mais jàpp naa ni taxawaay bi ñu doon taxaw nekk woon lenn lu dul taxaw rek askanam kon donc ñu ngi demandé ñu bàyyi ko nu mu gën a gaawee mais nag euh, di sant aussi euh, képp koo xamante ne si wax dëgg yàlla de près ou de loin jafe nga sa dërëm muy waa diaspora bi su ma tuddee Amath rek bi nekk Espagne dëkk Meewaan yóbbaale na ñëpp di sant euh, toutes les personnes ressources yu nekk si biir réew mi tamit muy képp koo xamante ni dugal nga sa gërëm rek vraiment ba yombalal ñu ñu jël ay avocat ba tey ji yàlla def yàlla dégg avocat yi ñëw taxaw taxawaay bu rafet ba ñu mun a bàyyi suñu doom yi nga xamante ni ñoom lañ jàppoon kon donc yéen nag waa baax ñu leen réserver une mention spéciale parce que yéen nag ñu ne yéen Tobène ñu ne yéen Thiès ñu ne yéen partout kon donc yéen mention spéciale ñu leen sant di leen gërëm di ko tax teg ci loxo Cheikh Ahmed Kane mu teg ko ci loxo yow mi Pape Ndong ngeen jotali ko seen directeur di wax ne tabax daal sant nañ ko gërëm nañ ko.